li ñu mën a jàpp mooy pavillon bi ñi ngi koy waaj ubbi d'ailleurs exposant yu njëkk yi commencé nañ jóge Sénégal euh, artisan yi am na ci ñu takku ñu ñëw euh, ñaari fan a ngi nii ñi ngi installé wu foog naa démb ak euh, tey la ñu tàmbali installé wu am na aussi yenn exposant horticole également yu commencé ñëw lu ci mel ni SEPAM mooy société d'exportation des produits agricoles et maraîchers donc ñooñu ñu ngi tàmbali ñëw léegi dinañu xool fii ak fan yi nga xam ne dinañu mën a installer définitivement ñun tamit ñu pare pavillon bi définitivement ministre commerce monsieur Abdou Karim Fofana moom ci boppam ñëw mën ñu lancer officiellement pavillon bi ñu tàmbali liggéey bi waaye li ñu mën a seetlu mooy euh, participation Sénégal jàpp nañ ne mucc na ayib ba pare ndax boo seetloo lu tolloog juróom-ñett fukki réew ñi ngi fi di bokk ci exposition orticole bi nga xam ne dina durer juróom benn weer waaye liñ ci nemmeeku mooy taxawaay bi ci Sénégal am ak nim ci doxalee néew na dëkk yoo xam ne def nañ ko euh, surtout nag ci wàllu gàncax ci wàllu euh, arbre yi moo xam arbre fruitier la moo xam arbre d'ornement la wala yeneen espèces yi nga xam ne am nañ ko indi nañ ci lu tollook téeméer téeméer ak ñaar fukk la woon mais dafa am yu yu des ci yoon bi mais lu toll ak téeméer nemmeeku nañ fi ko fi yooyu yëpp ñu mën a joxe seeni spécification technique am na yoo xam ne sax daanaka Sénégal rek la am mais li tax may ñëw ci loolu dafa di euh, lii dañ koy daal di boole ñun waa ASEPEX si benn ci ponk yi nga xam ne li ñuy promouvoir la à l'exportation ndax marché bu am solo la bi ñu ñëwee ba exposition bi tàmbale ba ñu commencé dugganteeg réew yi gis nañ ne yoon bi buñ ko jàppee am na koom bu bëri bu ci mën a génn surtout dëkk bu mel ni fii euh, gis nañ ne bëri na suñu garab yoo xam ne ñoom fii dañ ko soxla pour seen aménagement euh, liñ fiy faral di nemmeeku mooy dëkk yu mel ni Hollande ñoom ñoo fi teg tànk mais Hollande boobu bi jardin bi pare ba léegi daanaka bis bu jot mu ñëw fi laajte espèces yi laajte nan la laajte naka la ba pare yàlla dogal aussi parce que mënoon nañu saxal garab yi ñu dee mais biñ leen saxalee ba léegi vraiment ñoom ñëpp ñu ngi commencé jebbi wane ne adapté wu nañ fii donc yooyu yëpp dafay baax ci ñiy ñëw ñu xam ne ñii kat li ñu am mën nañ ko promouvoir fii fii ci dëkk bi réew bu mel ni Japon aussi bu bëri intéressé na ko li ñu def fii daanaka pays yi fi ne yëpp ku nekk di nga ñëw soo xëyee xool li Sénégal def xool li am Sénégal loolu nag mooy exportation balaa nga naan naam ne fa balaa ñu naan dañuy jaay li ñu yor foog nit ñi xam lu am suñu dëkk te tey boo ñëwee ci pavion bi moom Sénégal moo fi ne parce que lu weesu gàncax géeg yooyu suñu artisan yi li ñu xam li ñu mën seen savoir fair ñoom tamit ci bi ñuy tekki seen bagage yi la nit ñi commencé ñëw di xool ak laaj yaakaar naa yooyu ay élément yu am solo la dinañ xaar nag parce que dañu ñëw rek taw bi aussi soob soob bu xaw a kii mais euh, jàpp nañ ne fii ak semaine jëm fukki fan incha allah yëfi dina jàpp bu baax ba nga xam ne li ñuy wut ci exposition bi moo xam ci wàllu secteur horticole mais surtout ci wàllu koom ndax Qatar aussi réew bu am potentialité la yooyu yëpp bëgg nañ ci dugg bëgg ci dugg ak professionnel de l'horticulture yi bëgg ci dugg ak chambre de commerce yi bëgg ci dugg également ak bépp institution boo xam ne euh, ñëw nga fi te ñu mën a am ay partenariat ak euh, waa dëkk bi en tout cas dinañ ci waa ASEPEX dinañ ci def seen kéem kàttan taxaw ci ba nga xam ne suñu participation dina doon lu mucc ay mais surtout dina am résultat te wàllu en tout cas exportation lu jëm ci wàllu floriculture moom danañ ci gën a gëstu bu baax a baax ndax gis nañ ne marché bu am solo la tey ñun defuñu ci dara boo xoolee dëkk yu mel ni Kenya ñu ngi ciy am lu du jeex daanaka ñoom bokk nañ ci ñi aussi indi fii eh, gàncax yu bari jàpp naa ne loolu moom danañ ci waaw am gëstu yu xóotu xóotu xóot